الى جهه من اي درجه بسم الله atte Khalifa Sall ba day a eh. ma ne leen démb tribunal ba yëngu na de vox populi ne Dakar loogu miti miti sax waaw le percepteur yi daal di kon def a eh, waaw ak monsieur le maire ma la Mamadou Omar Bokum day ak Mbaye Touré waaw daal di na nuy xam leen ne mosu ñoo xam nag maanaam kon xaalis boobe nañu koy jëfandikoo ma ne la ñoom ñaar la ñu wax bokkul de déedéet ma ne la Mbaye Touré day waaw daal di nay yenn saay day bu ma fa nekkul woon waaw ma ne la Mamadou Omar Bokum mi lée moo doon yëkkati koppar gi kon di ko jox nag monsieur le maire Mbaye Touré ne waaw parce que Omar Bokum day xam na bu baax a baax xaalis boobee fa mu doon jëm Omar boo comme ne ko waxoo dëgg de loolee amul de loolee amul de musuma xam ne kon xaalis boobee ma ne la ay fonds politique la déedéet man kay doon fay rek dama doon fay te musuma jébal xaalis na kii di monsieur le maire fa waa inspection générale d'état di koy waaw ci doog a xam ne kon lii nekkate kon caisse d'avance la boo ko may du samay kaddu de ay kaddu Khalifa Sall day maire de nee na leen maa leen mag du ma nangu ngeen may kekkantoo te monsieur le président du tribunal neexul ba neexul waaye fii du sama place ma ne la aw ma fi place Khalifa Sall ci yéene ma jamal jàngi loolee mais monsieur le président waaw xanaa xamoo ne fonds politique yi dama ne nekkul ne maire wala ñi xam ne ñoom ñoo liggéey ca maire ba day ñoo koy jëfandikoo déedéet waaye askanu Ndakaaru njaay jël job kon ñoo jëfandikoo looloy dëgg te nag mën te yàgg ba ma tudd seen tur ndaxte daf ci am ñoo xam ne nag dañ feebar di ñëw di sakku ndimbal am cancer prostate cancer du col de l'utérus cancer du sein waaye est-ce feebar war la wax waaw ne ko yow monsieur le maire nee nga doo tudd tur day waaye jox nañ ñu fi am kay goo xam ne day ma ne turóo nga ca ah, ay turóo nga ca nag laa la wax Khalifa Sall ne ko dee góoma de du ma mës a tudd seen tur laa la wax réew mi quotidien ne caisse d'avance googee waaw ma la maire de day daal di ne taxal Abdoulaye Wade mi lee ak Macky Sall yaa jum wala maa jum ma ne wal fajri ne déet Khalifa Sall kay a ah. ma ne la sulli de sulli na de parce que Khalifa nee na lay wax ni dikk na sàkku ndimbal ci kees gi laal na ma ne Macky ñam na ca kees ga Khalifa Sall ne 2012 la mu ñëw sàkku ndimbal maire de Dakar ci laas ne man nag ma suma xalaat ne nit ñi mën na ñoo wax waxetee nii changé complètement ma suma koo xalaat xaafaa ngi ñëw xaafaa ngi ñëw idée ngi ñëw idée ñii ñëw yéene kaa gi de moom Idrissa Seck day waaw ma la jommal na nag fi nekk nii république bi de moo leen daree nelaw idi indispose la république tey sikkundik sikkundik ni jinne jommal na la ma ne Idrissa Seck a ngi leen di jommal la la wax ci tournée nationale yi nga xam ne kon mi koy def ñile ak song yi nga xam ne kon maanaam mi leen koy song waaw waaw l'observateur ne waaye moo taxit moom Idrissa Seck day ñoom ñëpp a ko songandoo laa la wax le ne bourse familiale yi lée ak couverture lu bon la waaye loolu waxtu ñaaw la waaye ay gros mots la waaye Mamadou Kassé porte parole initiative waaw nee gis nga Idrissa Seck digganteem ak Macky ah, comme yàlla ak yàlla la il ne boxe pas dans la même catégorie président Macky Sall nekkul moroomu Idrissa Seck ah, Kassé ne waaw premier ministre bi ci Walfadjri ne yéen laay waxal bu deen déglu ñi nga xamante ni maanaam nekkee wuñ fi lu dul découragé nit ñi rek moom premier ministre ci réew moom rek moo mën yëngal premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne uh-huh. maa la ko wax de maa la ko wax de ma ne la moom Idrissa Seck kay boykatee benn kàddu ba ŋàññi ñoom nguur gi waaw ñu daal di ñoom ñëpp idée leen yëngal de ma la ba ci njiitu gouvernement bi laa lay wax premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne idée leen yëngal Idrissa Seck ne dama ne waxuma ne yokkute gi di taux croissance baaxul waxuma loolu de dama ne waa ñoom fi wax ne foofee yokk tey sénégalais yi nekk di croissance bi bu dee fa ne waa mais lan moo tax nag ba askan wi continuer seen troxtaange gi di sonn lool waa nañ ci indi ay jindi explication lii laa wax premier ministre bi ci libération yi ne kay ne dama ne ñii nga xam ne daal dañoo xarañ lool ci découragé askan wi bu leen leen déglu Mamadou Lamine Diallo ci libération yi ne kay ne suul ker waaw wax nañ ne yokkute kon am na gu rëy chiffre ñu joxe gàcce rey te seen ministre agriculture gi Seck Ndanane moo leen ci jàppale ma gàcce dana leen rey ndax yow nañ dooree ci bor bi nga xam ne nguur gi yoree na ko fii ci biir réew mi rek di det intérieur bi booboo gën a ndaw li nguur gi yoreel université yi institut supérieur yi li nguur gi yoreel kon ñiy yëngu ci wàllu mbalit mi hôpitaux yi ñi koy joxe matériel di fournisseurs yi li nguur gi yoreel entreprise bâtiment yi ak yeneen ak yeneen ci njeextalu weeru décembre 2017 looloo tax ba jàngalekat yi salaire yi di tardé dëkk bi tamit kon di jax-jaxi grève mel ni tulleeg ma te xoolal bëri ko pétrole bi taxay ni mu wàccee Macky Sall ak njabootam rek fa même fay fay geeg Sall Sall gi waaw ñoo ci profitoor lii daal la Macky liggéey xanaa ak entreprise étrangère yi non Macky liggéeyul askan waa ngi ni lee mel ni xob di laf-lafi nekk ci diggante ñaakub liggéey ndóol torox ba ni tott totoral laa la wax Mamadou Lamine Diallo yemu ca a ba mooy waa inspection générale d'état waaw dañoo bind président Macky Sall ne ko bul joxe pétrole bii ci Kayaar ak ca Ndar boobooy benn ñaar Aly Ngouille bind benn faux rapport ay laay la ñett Macky Sall ci boppam daal di jébbal pétrole boobu eh. Kayaar rek Ndar pétrole tim juin 2012 te Macky Sall mu leer ko ne rakam ji di Alioune Sall nga ca biir lii la def non Macky liggéeyul ki liggéeyul kay enquête yéene kaay nee na xam ko ay laay benn taximan de baax enquête yéen kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ci yoonu jam ñaa jógi lanu ko jàppee laa wax ak de la non Macky liggéeyul nekkate waa ji circulation ma nga xam ni kon moo nekk na ci àllu mbuur bee moom donga fa doon monté tunda waaye bañ ko jàppee day weer na ñi nga xam ni lépp lu mu ñoom la ko jox receleur ya ca kolobaan gii lañ ne toll nañ ci fukk ak ñett la ilaha <laughs> alaaji comme que réew mi moom dañ ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ñii yeewu quatre heures du matin vingt di leen të ñii yendu ci bureau yi di étage non Macky liggéeyul boo paree ma ne la alaaji tëjal